mbokk internautes yi dal leen nag jàmm coowal 94 euh, euh, milliards gi nga xamante ni nag euh, Tahirou Sarr daal nañ ko ci nag tudd xam ngeen ne mbir yi ba tey ma nga nag ca loxo yi nag justice of nag ci boppam di office national de lutte contre la corruption moom moo daal di traqué. ki nga xamante ni mooy Tahirou Sarr mbir mi nag suite lañu nekk waaye jeexagul euh, ci affaire 94 milliards bi leen ndax ci prestation de serment wu mujj moom nouveau président bu of nag dafa promettre ne dafay combattre wàllum corruption di guerre da koy xeex mission bu of OFNAC euh, ñu définir ko par la loi ci nag ni dañuy xeex contre la fraude corruption pratique assimilée ak indépendance gi nga xamante ne nag moom la ñu daal di nag doté ak ay moyen ay yoo xamante ni autorité bi euh, itam jox nañu ko bu ñu sukkandikoo ci Serigne Bassirou Gueye xam ngeen ne ancien procureur de la République moom moo daal di nag euh, ex procureur de la République euh, moom nag moom nañu daal di nommé mu nekk nag ka jiite OFNAC bu daal di bees tax tax office national de lutte contre la fraude la corruption daal di nag ñëwaat ci coowu 94 milliards bi leen ni nag euh, bu ñu sukkandikoo ci journal exclusif moom Serigne Bassirou Gueye di traqué Tahirou Sarr d'ailleurs bu ñu sukkandikoo ci journal bi di ab information judiciaire la ñu ubbi euh, contre nag Tahirou ñu fàttali ci rapport bu atum 2019 euh, démb ko remettre chef de l'État Macky Sall ndax OFNAC dafa doon dévoilé résultat bu enquête bu mu def ci dossier bile ci nag saisine bile le avril 2018 bu Ousmane Sonko député Assemblée nationale et président bu parti politique Pastef les Patriotes ressortir ci rapport 2019 bu OFNAC investigation yi ñu mené contre euh, euh, nag lu ni mel dafa permettre ñu confirmer quasi totalité yu griffe soulevé euh, yi nga xamante ne plaignant bi Ousmane Sonko moo ko def enquête bu OFNAC bi le ñu retenir contre Mamour Diallo Tahirou Sarr compagnie infraction yile muy association de malfaiteurs escroquerie portant sur des deniers publics tentative d'escroquerie sortant itam ci ay deniers publics ak complicité d'escroquerie boo xam ne dafay porté euh, ci ba tey deniers publics le 10 avril 2018 office national de lutte contre la fraude et la corruption itam ñu saisir ko ci benn plainte euh, bu monsieur Ousmane Sonko député assemblée nationale jamono joojule nekkit président parti Pastef les patriotes pour ay faits supposés transactions immobilières irrégulières irrégulière ak détournement de deniers publics euh, topp toll ci 94 milliards 783 euh, millions 159 mille francs CFA enquête bi mené que titre foncier 1451 R benn contenance 258 hectares nekkee ci Rufisque ñu inscrit ko euh, ci turu feu Ousmane Bangue ñu daal di koy jaay par acte notarié société bi di CM Indépendance ci année 1978 1979 bi les sociétés ci cadre benn échange daal di accepté état bu Sénégal euh, ci benn terrain bu superficie bu un hectare euh, quarante neuf euh, ci nag nekkee ca diwaanu Mermoz moo tax nag jamono ji moom Tahirou Sarr mii di acheteur moo jëndoon terrain boobu ne acte de cession bi ñu effectué sous seing privé dañ ko présenté impôt yu domaine pour paiement taxe yoo xam ne tollu na ci vingt cinq millions laata ñu ko déposé ca kanamu nag notaire bii